ngañ dem ba waxul kenn ne leen tarixa yi fi nekk seen seen morom la ñuy jaamu ngañ dem ba waxul loolu dane procès passé fal Ousmane Sonko lenn la ci waaye li ëpp solo mooy bu bu ñëwee fexe ba nit ñi bàyyee jaamu seen moroom di jaamu seen borom sëñ Touba loolu la réussir xam nga tey ah Macky Sall mi nga xam ne yow biir na la ne ñëpp xam nañ ne Macron mooy patron moo koy manipuler fa mu teg Macron tegu fa kilifa diine yi fii bi ñu fi waxee yonent bi naka sudul noonu fii la dagg biyee dem ñu wax yonent bi naka sudul noonu tey Sénégal quatre-vingt-quinze pour cent musulman ñoo fi nekk te président bi nga xam ne moom lañ teg seen bopp réew xàmmewut Faty Yacou Sarr loolu lu ko gën a dansé man bu doon ci meneen réew laa jógee ñu invité ma fii ma ñëw ne leen quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman la ñu ne maaw dama naan leen déedéet bu fekkee ne yéen seen président mënta mënta jiite tisbaar kay yéen nu ngeen ngeen mën a doone ay musulman da bokk doomi jullit la la mu daj ba doon maanaam ingénieur buy gasi forage su ko dajoon ci Fatiha dina ko mokkal mais Macky Sall xàmmeewul Fatiha ko saar damay dégg Cheikh Yérim Seck naan Ousmane Sonko Afrique ñu ko développé ñëpp du selluñu ah mais ñun bu fekkee nag mën nañoo am ku développé Sénégal ba pare boole kooku mokkal alxuraan di référé woo ci mag ni ba pare sell duñ ko jël dañ koy jël xam nga laaxu soow piir ku ne xam na ne normal na mais boo amee sa diw ñor ba gàcc ko ca day gën a silvise mais sëñ bi mhm. euh, sëriñu daara yi wala doomu daara yi daaw ñu leen gis sincèrement ñu engagé wu nii si politique dëgg-dëgg lan moo tax euh, euh, si Ousmane Sonko benn ngeen engagé wu wala euh, ñaareel bi lan ngeen yaakaar ne boo leen demee tey ba Ousmane maanaam Ousmane Sonko jël réew mi doomu daara yi maanaam di leen si gis seen bopp. xam nga Ousmane Sonko bi muy jógee ñu koy dàq imp muy jóg ko daanu di jàng dox ak raam boobu sëriñ daara yaa ngi ci réew mi yor seeni bët di ko jàng man mii ma nekk ci réew mi keneen nekk ci réew mi keneen nekk ci réew mi. mu dem ay élection jàpp jàll pile for doon député élection yi ci toppaat mu jël troisième élection yii buñ ko tegee ci yoon balaa midi mu jël réew mi avancement boobu nit ñi xel yi ñoo wuute kenn ku nekk dafa am lu muy xaar pour li koy leer ci nit ki mais sëñ jaare yi dañoo dem ba xam ne kii gis nañ seen bopp ci moom te dëgg la indi Ousmane Sonko nituk daara la daaraa nga biir këram mësta taxaw fenn wax ko ci sëñ daara yi ci la bokk sëñ daara la parce que dafa yor daara këram day jàng ay xasida yu ruqe ay doomam di jàng di julli di jàpp sëñ daara yi dañoo gis seen bopp ci Ousmane Sonko. mais nan ngay gisee koo xam ne moo mokkalutu saar nga gis kuy ŋàbbu juróomi isim nga leen di tëkkale dama ne bu jub gi jàllee xam nga tey Macky Sall bi mu ñëwee dane am na huit milliards Ablaye Wade di ñëw ne amul mu ne Ablaye Wade dama koy Ablaye taxaw ne mayu ko huit milliards yooyu waxuma la li fi jaaraat lépp nag ak niñ yàq réew mi ak niñ sàcc réew mi yooyu yëpp waxuma ko Ousmane Sonko dafa liggéey ci état vingt ans wala quinze ans défier ñëpp ne leen ku mas a taxaw ne jox nga ma dërëm wala mas nga maa génnal wax ko loolu ba mu ko waxee ba léegi ñaara ñaaraatagut te du ñaar bañ demee ba xam ne mënuñ koo jàpp ñun man tey yéefar bu mën a yor réew mi moo ma gënal fuuf murit boo xam ne mënta yor réew mi ci gàttal ñun Ousmane Sonko ànduñoo moom ci kii jullit la wala nangam la li ñu soxla ci moom jub gi ak programme bu set bi indi loolu moo ñu jaral lépp loolu moo ñu booleek moom mu ñëwaat ci affaire wu ngañ demba boobu mais ngañ demba li li li li mu jubloo wax mooy président yi fi nekk nanu jaamu seen askan te bàyyi ñeneen ñi ñuy jaamu bu bëkkee dañ ko bëgg a jële nag indi ko ci tarixa yi buñ nee sab sëriñ bu buñ nee euh, diine mag ñi bu bu nit génnee ne bàyyi leen jaamu seen moroom te jaamu seeni boroom nga bokk murit nga bokk nga bokk euh, tarixa murit ya xalaat ne sëñ Touba nga yab yow yaa yab sëñ Touba ndax sëñ Touba loolu rek la réussir man li ma sama maam da cee bokkoon man sama maam buur la woon déggoo li ma la wax sama maam buur la woon bi mu ñëwee sëñ Touba da ko yalwaan loo yaa ngi dégg kabaa ki baat mexee ki péncum lambay toxal na làmb ya saxal fa laay-laay pénc mu daa sabaru baa ñuy yoote tey jii ña ngay màggal di dox di woote seera di Touba ki kër maam Cerno màggal si nan làmbaay fa doomam Cerno kookoy sëñ Cerno Juuf làmbaay doomam ju mag ju baax ju siiw jooju loolu lépp mi ngi ci jasaawu sakkoor taarix taarixu yoonu murit fan fan ko bind ba yit yi ma la wax fa la nekk sëñ Touba loolu la réussir li ngañ dem ba wax ne am nañ yéene bay ci seen waar ñoom moom sax ba muy wax waxu jublu ci jublu ci euh, tarixa yi waaye dafa wax jublu ci képp ku nga xam ne rek dangay ngay jaamu leneen lu suñu borom ak koo mën a doon bàyyi ko te dem jaamu ji yàlla ndax yàlla bindul junne yi ak nit ñi lurul ñu koy jaamu li mu wax dëgg la képp ku ci gas sa bopp kay yaa war a seetaat sa toogaay ñoom ñoo sawar ci seen Ousmane Sonko ci mbiri salafiste wala luy xeex mag ñi ñoo ñoo ko yàq ñoo koy gént ñoom ñoo koy gént mais duñ ko ci mas a gis. mais euh, ñu bari nee neen la fekk ngeen teg euh, mouvement doomu daara yi wala li tax euh, maanaam Ousmane Sonko nekk si ginnaaw tey day nëbb li nga xam ne moom lañ ko doon wax moo di kenn du ko waxati ay wàllum salafis wala wàllum waxabis yéen doomu daara yi la utiliser ngir mën a wéyal yoonam. xam nga Ousmane Sonko woowu doomu daara yi ne leen ñëw ñëw leen rejoindre doomi daara yi ñoom ñoo toog ba am seenu kuréel. ràbbu seen bopp gisante waxtaan dem ba xam ne kii njariñ la ñu dem gis ko waxtaan ak moom ne ko dañoo am yéene ñëw jënd carte parce que lu jiitu loolu bind nañ ab kaamil jox ko fi kaamil bu tooy xëpp mu ñëw ci bis bi ñu bind ko ci bis bi jox ko lu gën a rey alxuraan te ñoom ña daje woon fee di jàppale Ousmane ko bokk nañ ci ñi gën ci àdduna bi parce que yonent bi moo ko wax ki gën ci yéen mooy ki am ki xam alxuraan ba pare di ko xamle lam tebbi mis wi de du cere de lam tebbi ne ci ñi gën la ci ñi gën ñoo ko jàppale